asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre saa su nekk ci bépp actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ñu amee habitude daleen ko defal saa su nekk di leen indi seen xibaar yi màccoo ci jàngoro yu coronavirus bi fii nii ci réew mu Sénégal depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla tey ji la jàngoro bi ni salaamaaleykum ci réewum senegal def na fi nag ay nombre de yu bay àgg nañu sax ci la baax des 1000 cas demoon nañu ba ab jamono. nombre de guéris bi moo doon ëpp nombre de contaminé bi ñu doon dundee yaakaar jamono ji nag sens contraire bi moo xew nombre de cas yi ñuy xëy di ko am par jour moo ëpp nombre de guéris bi. waaye sant yàlla ci ñaari fan yi ñu génn am nañu lu toll ci quatre-vingt-dix-huit personnes yoo xamante ni seen wér-gu-yaram mucc na ayëpp ñu koy sante yàlla di ñaan yàlla mu yokk. jàngoro yi coronavirus bi tegaat nañu nakar ndax démb ci mardi bi 5 mai 2020 à 23h55 ab xale bu góor bu tolloon ci 37 ans dëkkoon ci quartier bu Rëbës moo ñàkkee bakkanam ci hôpital principal bu Dakar ci jàngoro yu coronavirus bi ñu koy jaale ay mbokkam di ko jaalee Sénégal di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fa mu jugee tey ñaan yàlla lii nii di chloroquine bi ak artemisia bi mu gaaw daal di def effet bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom pour que di tëdd ci hôpital ba yàlla gaaw fëgg seen bopp ndax jamono ji comme niñ koy waxee rek l'heure est grave ba tax na ku ci nekk rek na nga jàpp ni yow ci sa jëmmi bopp kaa nga nga moytu sa morom bu ko defee rek jàngoro bi dina fi mën a jugee ci na mu gën a gaabee donc xale bu